kon nag alhamdulillah loolu mooy diine payoor lay tudd amul nag lu nit di nekk ti duñ la ko fee waaye bu dee ci diine ji nag juróom moo fi ne ban ban nee ma julli juróomi ponki lislaam julli ci gën foor lenn rekk moo jiitu julli ndooy ne la mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa lii rek rek rek mboolem xeeti jaamu yàlla yi jullee ci gën moo tax julli beneen affaire boo seetee koy def leer gi muy am ci jëm ndax li salaati nuurun azimun julli am na leer gu rëy waaye walaa yanaaluhu illa alxaashi'uun waaye nag bu defe ni julli rek lay may leer gi yàlla boroom xam-xam yi nee nañu julli su àndul ak jox ak julli kenn du la ko nangul walaa yanaaluhu illa alxaashi'uun joxal julli li mu moom na wisul ba mu set soo demee tuuri ndox jonkan ba ndox mi jeex saw mi jógal taxaw dékk sa loxo ba saw mi wàcc ba jeex nga toog doog a wisu soo paree soccul ba mu set nga gallax ndiku tuur soccu dana reesal ñam soccu dana neexal xel soccu dana leeral làmmiñ soccu dana reesal loo lekk dana neexal bëtit kon soccul yonent bi wax na ci hadis law lawla an shaqa ala ummati la amartuhum bi siwaak fi kulli waxtin aw fi kulli zaman aw fi kulli salaat su ma bañuloon lu diis ci sama xeet lu diis ci yéen ma digal leen ngeen di soccu jamono bu ne man sax ndoy waxuma soccu pour jàpp waxuma soccu pour julli waaye soccu ndax nit ñi ngay waxal ñi nga corona bi li muy garaaw garaaw nga xam ñëppay def nii ngaaw seen gémmiñ sol masque am na gémmiñ yoo xam ne bu la borom waxee yow nga dee ndax xasawaay soccal sa gémmiñ ba mu set am na ñoo xam seen siiñ fii ndoy xoolal fii gis nga yii day def ay tomb day toj di nàcc day day nëb di xasaw soccu amul morom yonent bi xamoon na yépp yi nga xam ne danañ ko jëfandikoo ci gémmiñ pour xet wàññeeku waaye bi mu ci xam ne boo ko jëfandikoo sa xetu gémmiñ dana dañ sax mooy socc yi ci des yépp mën nga am léegi xet gu neex avancé balaa ngoon boo ko defaatul du baax moo tax soccoy sangu lépp moo tax mu ne bu ma bañuloon lu diis ci sama xeet ma digal leen ñuy socc ci jamono bu ne kon bala ngaa jàpp ndooy demal nga socc xam nga léegi-léegi nga gis kilifa di déyanteeg nit wala nit di déyanteeg kilifa wala ñaari nit di déyante nga gis kenn ka concentré wu wala mu mel ni lu xaw a du mooyu fekk na xet gay génnee ci gémmi ñu koy wax moom la attenatul soccu leen soccu leen loolu mooy dëgg parce que loolu mooy diine soccul bala ngaa jàpp ndooy boo paree nga jàpp soccu nag Cheikh Al Hadj bi ci gën mooy nga def nii xoolal tàll sa làmmiñ di bomb bu dee bëñ yi ngay def nii nee na ci gën tàllal làmmiñ bi bomb ak def nii so bul soccoo nii Maodo nee na nii moo gën soccu ci la bokk soo paree nag gàllax ndikul tuur nag dem xool ndox mi nga war a jàppee ndooy nu mel ak bi ngay wisoo mooy bu melokaan bi soppeeku su xonqee su ñuulee su bulaa su vert su yoree beneen couleur bu boobaa ndox ma bàyyi ko fa su xeeñee leneen lu dul ndox bàyyi ko fa waaw kon melo cafka ga fóonal ndox mi soo fóonee mu xeeñ leneen bàyyi ko fa ndooy kaay ma wax la lëfte koo ca la mu la jëlee ci li te ku fippuwul li nga bëgg dama ne koo mënta jëlee ca la mu ne bu mu la jëlee ca la nga ne te ku fippuwul doo am la nga bëgg xamoo léeg-léeg nit waxtaan ak man dama bëggoon def nàngam waaye suma yaay nee na ma su baay nee na ma samay mbokk nee nañ ma sama doom yi góor nee nañ ma ma ne ko boo ko deful doo am dara dangay torox fippul parce que nooy fippul yi rek lay jur sa yaram damm baa sa yére xotteeku baa nga jàll boo ci am jëlal parce que confrontation alalu góor la du alalu ku ko yambare alalu góor muy jigéen muy góor boo dëgëree rek jàll moo tax booy jàpp ñett ñett ngay def dangay sotti ndox mi xool couleur bi boo ni nii dangay xool gis mu mel neneen bàyyi nga teg ca sex bu soppi ko bàyyi nga teg ca sa sarax ne ko bu xeeñee dara bàyyi ñett yi ñooy jiitu raxas loxo pour xool couleur bi galax ndeku pour xool couleur bi sarax ndeku ngir xool couleur bi ñett yi du farata soo paree nag jublu ci sëlmu moo tax boo dee sëlmu nag fii nga yéenee faratay njàpp yéene naa faratay njàpp continuer sa njàpp ci xar kanam parce que farata mu attan farata te farata ak farata ñoo mën a jëf kon commencé bii raxas ma wax nag lëf ndox mu soppeeku waa bu dee déeg bala changé la benn waaye dafa ñëw fekk may naan ci robinet bi mu naan ma woyi xanaa gisoo yi ñu def ba nga xam dañ ko infecté xaw ma lan ma ne ko yow bu ma fontoo ma ne ko man saalum saalum laa sénégalais laa génne gu réew mi xanaa tukki rek dem aji màkk baa ma dem gàmbi ñëw te gàmm mu fa yóbboon sayee dem naa fi Mauritanie benn yoon ma ne ko gis nga bi ma nekkee Saalum ndox mi ñu yóbbaale paan bi bu jeexee dañ naa la demal nga duyi ca taataa ya indi wala demal nga duyi ca déeg ya indi wala demal duyi ca siyaani indi ña ko doon naan dund nañu téeméeri at ak juróom fukki at wala téeméeri moom tegal na fii ndooy ko fi dundati téeméeri at wax ma ko seen naa la wax ma ko rek cent yu ànd ak wér bu la sa sët toppee di daw maam xaar ma soo ñëwee raw goj saalu mag may dégg ngay raw goj say bët naqariwul say loxo euh, dongul taataa lañuy naan soo maree ñëw ci taataa bi dëtam naan naan naan ba doyal dem sa yoon dara dalu la mais ndoy kon bu ñu kenn indil ay ndox yi nangam nangam d'accord nag nañ nangu ne bii baax na bale baax na nangul ne ñaari baax su fekkee ne ndooy ndox mi li ko soppi mu nga jógee fa mu taa walla li ko soppi ca teen ba la bokk suufu teen baa ko changé bu boobaa ndox ma laab na waaye lu ñu sotti ca ladde de ba nga foon ko mu xeeñ bu ko jàppee bu ko sangoo farata charia nangu ko loolu yoon man nag samay waxtaan moom jëmul fenn lu dul ci charia samay waxtaan amul ko may neexal amul ko may lii lii yàlla bëgg rekk ci lay jubal lii daal buñ ko ci sottee nga fóon mu xeeñ boo xëyee bu ci jàpp boo waree sangu farata bu ci sangu bàyyil ba feeg ngoon mu dañ boo yoree ngant nag tiimal julli wala yaxilu taqiru salaati li adami ñàkkal ñàkka ab daganul ndooy nga bañ a julli tëdd nga biig